mbokk yi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di gàttal rek ci wolof di wax ne kontaan nañ lool lool lool tey ci li nga xam ne mooy passation de service bi ndaxte effectivement keroog bi ñu tegee ci pencum ndaw réew mi mooy bi dép di euh, nekk député à l'Assemblée nationale le 13 septembre dañu démissionné jox leen monsieur le secrétaire général Bathie Ciss mu téye Euh, njaboot bi ba tey jii nii ñu nommé madame la directrice générale Zahra Iyane Thiam mu uutuñu fii ci agence sénégalaise de promotion des exportations li ñuy wax rek mooy koo xam ne la xam na li muy def xam na fi mu jëm parce que li muy def yàgg na ci mën na ko xam na naka la koy defee donc suñu xel dafay dal ci loolu suñu xel dalee ci loolu nag li ñuy wax rek mooy mu am na personnel boo xam ne bu xarañ la ñu mën liggéey lañ xam nañ fi ñu jëm te it euh, gëm nañ ne mook personnel bi liggéey bi ñu nar a def incha allah dina yóbbu agence sénégalaise de promotion des exportations ak exportation sénégalaise fu su fu sori di remercier itam ministère du commerce ci accompagnement bi di remercier également euh, ñi nga xam ne ñoo nekk conseil de surveillance te président Souran représenté leen di dénk également njaboot bi ñi nga xam ne ñooy opérateur économique yi artisans yi euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci secteur d'activité yépp entreprise yi ñu ngi leen di dénk madame la directrice générale pour accompagnement bi nga xam ne moo mooy ñëw di ñaanal madame la directrice général ci euh, fi mu jëm ci liggéey bi liggéey bi yàlla def ci barke euh, yàlla def ci jàmm ak salaam Euh, incha allah euh, gëm nañ ne li mu yore mën na ko te dina ko def euh, ni mu waree maa ngi leen di gërëm di leen sant.